surtout adressé une notification euh, pour se donner l'information donc moom moo daal jox boppam suuf soosee vingt vingt mille hectares yooyu moom moo ko jox boppam ndax moo nekkoon euh, donc directeur euh, de domaines ci jamono joojee notifié boppam ci lettre boobee ba noppi jox boppam vingt mille hectares am yooyee loolu mooy séddale sa bopp d'abord donc en terme aussi plus clairs moom ma Gueye en tant que directeur des domaines moom moo bind ma Gueye sa propre personne euh, pour daal di notifier boppam maanaam yëgal boppam ni dafay daal dina am am na daal lu tolloog vingt mille hectares euh, ci euh, donc zone bu Toglu boobule moom loolu daal loolu daal neex na lii daal moo neex. Euh, donc mu nekk euh, fee bi nga xamante ni yor-yor bi moom la daal di xëyee tey cinquante troisième édition aussi bu Laïd Al Etihad ñëwaat na ci bu baax a baax ak les présidents émirates yi ak sénégalais yi nga xam ni exploré nañu les moyens d' approfondir euh, leur coopération muy jokkalante gi nga xamante ni dina dox ci seen diggante list des médias reconnus par l' état ak donc la CJRSD donc ñoom ñi ngi invité bu baax a baax ministère bi muy convention des jeunes reporters du Sénégal. Sall nga xam ni mi ma Maram Ndiaye moom mooy euh, njiit la ñu ngi en tout cas euh, invité bu baax a baax ministère ak patronat au dialogue ñu gën a waxtaan ci mbir moomule ba trouver consensus ca lu ni mel libération yéen a kaay des na ci Sénégal Émirats Arabes Unis tamit ci la des ci dëkk mi nemmeeku bu président de la République Bassirou Diomaye Faye boobee mu ni une volonté commune de renforcer les relations bilatérales ci la daal di xëy ñëwaat waaye pool financier na ci ak saltan bi nga ni pour le DG e de Transcon ñëwaat na ci kii di Ilza Mazanek moom mi ngi am ab retour de parquet vers la saisine du collègue donc du collège des juges d'instruction libération yéen des na ci mbirum enquête yam daan ñëwee tout le temps ak tey bras de fer bi nga xam ne dem na ci euh, devant le tribunal après deux notifications euh, donc de redressement yoo xam ne am na ko ak le fisc ñoom ñi ngi réclamer trois virgule cent cinquante huit milliards de francs CFA à Allianz Sénégal Assurance moom lañ koy daal di euh, toppee moom kër googu la libération ci la ak le parquet yi nga xam ne corsé nañ le dossier maanaam gën naa diis euh, le président donc Domat City euh, ak son DIRCAP muy directeur de cabinet ba ak euh, donc la fausse tente du président écroué pour association de malfaiteurs escroquerie ak blanchiment de capitaux ñoom loole lañ leen ni toppee ñoom ñaar ñooñu le lii quotidien des na ci dette fiscale ak fin de la concession ak les ICS ñi nga xamante ni seen contrat baa ngi doog a ñëw waaj a jeex nag intouchable dafa daal di samp laaj ndax les ICS dañ leen kenn mënu leen kenn mënu leen a laalam déet euh, ci wàllum dette fiscale euh, ak euh, fin de la concession moom ci la day xëy xaatim moom lii quotidien mu ni nag deux 200 milliards yi nga xamante ni ay dette fiscale la yoo xam ni toujours ICS fay guñ ko ak Sonko mi nga xam ni lors la campagne électorale moom nee na la société les ICS ne paye pas d'impôt loolee la daal di xamle ci campagne électorale yi fin aussi de la concession bi nga xamante ni ci atum euh, euh, xaar ngir jëlaat ICS ci ay loxoom moom journal bi dafa daal di samp laaj moom lii euh, quotidien ñëwaat na ci bu baax a baax waaye dem na mi nga xam ni ñoom ñoo nga sóobu ca campagne donc de commercialisation de li ñu bëgg moom mooy 300 000 tonnes de graines ñoom waa Sonacos loolee mooy seen objectif ci at mi source a ñëw na ci donc après la procédure aussi judiciaire bi nga xamante ni daan nañ koy entamé ci euh, niki démb par le bureau de l' assemblée nationale pour nag daal di radier ki nga xam ne moom moo di Barthélémy Dias ca assemblée nationale ba moom place à la mairie donc de Dakar ginnaaw ci loolu daal buñ mayul ci ndomba tànkam bu maire bu Dakar la ñuy daal di euh, jublu moom Barthélémy Dias donc muy nii nag décision bu pour nag daal di koy génne ca hémicycle ba euh, fi mu ne nii daal nañ koy jël tekki ko gàddu du kenn ku dul El Malick Ndiaye suite à une de la justice justice waaye nag successeur bu euh, Amadou mam Diop bi daal di nañ ensuite notifier la décision du donc au bureau de l'Assemblée nationale en com donc euh, comme aussi euh, cela ne suffisait pas moom ay sources sûres euh, ci biir journal bi ñu ngi koy relever moom source a que ki nga xamante ni nag confier nañ ko nii que le proté le protégé de xalifa Sall di le Diaz moom dina ñàkk prochainement fauteuil bu maire bu Dakar bi nga xamante ni moom la daal di gàddu moom journal bi ñëwaat na ci bu baax a baax le public moom des na ci presque donc agonisante ak opposition inexistante daanaka presse bi kenn ñoom ñëpp ña ngay sukkuraat waaye euh, opposition bi ñoom euh, cell gi ñu nekkee kenn xamul nu mu nu mu nu mu demee la pluralisme le pluralisme donc politique ci la daal di ñëw fii ci réewum Sénégal euh, enterré par la rupture daanaka loolee moom suul nañ ko tey li ko def du lenn lu dul rupture ak tandem bi nga xamante ni ñoom ñooy incarné lu ni mel moom journal bi ci la daal di xëy ñëwaat L'As Quotidien des na ci Ousmane Sonko moom mu ni nag problème West African Energy ci la daal di ñëwaat Sonko convoque le patron de donc Salik Energy moom Ousmane Sonko convoqué na patron euh, boobule donc ñëwaat aussi ci présidence aussi. Euh, primature euh, ak parlement ak les jeunes euh, yi nga xamante ni brisé nañ le plafond de verre Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ak kii di El Malick Ndiaye muy trio donc ñenn ñi tuddee le triangle des Bermudes donc mu ngi noonu mu nekk li mu xëyee tey moom L'As quotidien des na loi sur la parité aussi ak un texte bi nga xam ne appliqué nañ ko au gré des intérêts politiques donc ñëwaat na ci bu baax a baax moom journal bi L'Observateur la ñuy jàll mu ñëw ci hypertrophie mammaire di quand le balcon devient un fardeau moom ci la daal di xëy euh, ñëwaat moom euh, libération yéen a l'enquête bu mu am sur une nature donc gênante et parfois source de complexe euh, ci wàllum jigéen ñi ci la moom daal di xëy xaatim bu baax a baax l'observateur moomee des na ci lettre du garde des sceaux de et la réunion aussi d'hier du bureau de l'Assemblée nationale bay bàyyi assemblée moom ci Barthélémy Diaz la ñuy def allusion moom ci xëtam mu njëkk le début aussi de gros ennuis pour le responsable Taxawu qui, en plus d'être euh, sur un siège éjectable à l'hémicycle, risque donc de perdre son fauteuil de maire de Dakar moom Barthélémy Diaz day perte dix perte les bu ñu maywul noonee la ko journal bi daal di xëyee wax la Dakar waa ñëwit ci défi climatique fii ci biir réewum Sénégal ak euh, une épée de Damoclès bi nga xamante ni am na sur l'économie moom daal euh, mbir yi euh, diis na lool fii ci biir réew mi surtout nag ci wàllum koom moom journal bi loolu la daal di xëyee Vox Populi des ci prolongation si des législatives ak le pouvoir bi nga xam ne bu bëgg du lenn lu dul porter l'estocade donc à Barth maanaam daal mbir yi dina diis gan wala mu wexaat ci kii nga xamante ni moom moo di Barthélémy Dias bu ñu mayul ci ay bés yi Eh, di teggi eh, statut de député mooy le maire de Dakar vers la déchéance de son mandat de député donc ak glaive bi nga xamante euh, mooy son condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga li nga xamante daal moom moo ko daal di euh, daaneel fi mu ne nii waaye sur les traces aussi de son mentor le député Khalifa Ababacar Sall a été victime le janvier euh, donc même fait même fait même fait même fait donc kii li nga xamante moom moo di Alioune Tine borom Jom concertation aussi yi nga xam ni imposé wu nañu urgemment euh, entre le gouvernement et les entreprises de de presse maanaam daal faw ñu toog waxtaan mënul ñàkk euh, que donc cesse les procès d'intention moom Alioune Tine noonee la ko daal di fësalee ci biir journal bi les qu'on se mettre donc qu'on se euh, autour de la table dans la sérénité le respect mutuel et que tous les problèmes soient donc posés sur la table nañ ko waxtaanee daal moom loolee lay woote moom Alioune Tine muy jafe-jafe y nga xam ne presse bi ànd ak euh, gouvernement bi euh, en l'occurrence le ministre de la communication ils sont donc dans une logique euh, d'anéantir un adversaire politique gênant moom ki ko xam ne di Pape Konaré Diaité moom mooy chargé de communication bu Barthélémy Diaz moom mi ngi tiré sur le pouvoir ci biir journal bi nga xamante ni moom moo di Vox Populi Les Échos yéen kaay moom dafa ñëw ci wàllum entrepreneuriat sportif fii ci euh, fële ca capitale bu Sénégal di Dakar ak Sport Summit moom Tyson euh, nekkoon fi lutteur dans l' moom ci wàllum mbay mi ma ngi ci yëngatu bu baax a baax mbirum pétrole ak mbirum mine aussi euh, ku ca teew la Tyson ak les 30 millions et les actions d'un opérateur téléphonique ñëw ci nag ne dafa jox rëg-rëg 5000 francs il y a Tyson waaye tey jii Reug rek doon na li mu doon moom Tyson ñëw ci beaucoup de jeunes yi nga xamante ni ñoom ils sont meilleurs que LeBron James en basket waaye amuñu yenn jàppandal yi ñëwaat ci euh, la lutte aussi et plus novice que euh, constructive làmb lu mu yàq moo ëpp daal lu mu defar di ay kàddu yu Mohamed Ndao Tyson ci biir journal bi les fins de législature pour Barthélémy Diaz révoqué aujourd'hui moom Barthélémy Diaz bu maywul daal euh, dinañ ko daal di euh, teggi mbirum député am tey jilee le ministre de la justice en a fait la demande hier au bureau de l'Assemblée nationale raison donc invoquée li nga xamante daal moo tax ñu bëgg a def lu ni mel mooy condamnation définitive ci mbirum Ndiaga Diouf moom nga xam ne moom lañ faatoon ca Mermoz la décision aussi entérinée donc bi nga xamante ni dinañ euh, teew tey en plénière euh, Pape Djibril Fall va prendre la place donc moom Pape Djibril Fall mooy fas yéene burux la ca assemblée nationale googu ci place euh, kii di euh, Barthélémy Diaz enquête quotidien des na ci coopération internationale ak les voyage du président en question maanaam tukki euh, njiitu réew mi daal fi mu ne nii manees nañ cee nekk nag di laaj fii ba suba ak des voyage coûteux maanaam lu cher la ci gafag ak réew mi pour une diplomatie en de résultat te kenn gisagul résultat ya plus de vingt déplacement internationaux en huit mois moom njiitu réew mi ñëwaat aussi ci en attente aussi de retombées concrètes ci. wàllum tukki googee nga xamante ni euh, mu ngi koy def ay bés yu nekk des na ci violence basée sur le genre dans le monde euh, moom muy jëm ci wàllum violence gi ak toutes les di minutes une femme est tuée daanaka fukki minutes yu nekk rek euh, benn jigéen dina ñàkk bakkanam te du lenn dul dañ koy daal di faat ndax violence donc basé sur le genre ci monde entier donc préparation aussi historique ak la trouvaille du parlement panafricain ñëwaat nañ ci bu baax a baax ñoom député yi CEDEAO ñu ngay wàcc Euh, journal bi ñëwaat na ci euh, bu baax a baax le quotidien la ñuy jàll moom dafa ñëw ci levée de fonds sur le marché de l'UEMOA ak l'état bi nga xamante ni na dibatu donc moom euh, nguur gi euh, ci njiitug euh, diba nga xamante ni mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllum koppar gi ñëwaat na ci bu baax a baax ak levée de fonds yooyu la ci marché bu yemoo yi la vérité sur l'émission de 92 milliards ñëwaat na ci bu baax a baax ci dëgg-dëgg ak l'état bi nga xam ne ñu ngi wër plutôt 130 milliards le ministre bi nga xam ne retourné na au marché les décembre prochain ngir daal di wuti xaalis moom Cheikh Diba assemblée nationale ak les commissions permanentes pourvues donc ce vendredi bi euh, dinañ euh, ñoom euh, dajawaat fële ca assemblée la dépêche ñëw na ci université Cheikh Anta bu Dakar ak les bourses payées ñoom boursiers daal commencé nañ koo fay ak la grève aussi ñoom étudiants suspendre nañ ko ginnaaw bi ñu yëgee annonce boobu la l'informateur ñëw ci pour donc le développement durable de Kër Massar ak vers un forum économique bi nga xamante ni ñoo ngi ko fay waaj a amal ngir nag développement bu Kër Massar développement durable social et solidaire moom ci la a mois euh, d'arriérés de salaire ak des agents de euh, Promogène ñoom dañ leen a daal di dàq euh, ginnaaw bi ñu toogee juróomi weer yoo xam ne kenn fayu leen ci kaw lakk ak le cumul des mois impayés atteint à donc doom daal nay bu ñu cumulé daal lañ weer yi nga xam ne fay ñu leen ma nga toll ci 18 millions de francs CFA mu ngi ci page 4 bu journal bi fu ko Quotidien des ci faible production aussi bu gerte gi Euh, ak le rêve brisé des euh, paysans daanaka daal gént la goo xamante ni euh, gu tas yaakaar la mooy gerte gi ak produit bu ren bi le bu Amadou Ba moom mooy le monsieur droit le de Pastef moom Amadou Ba mu ngi def l'unanimité dans la classe politique moom Amadou Ba numéro 2 bu Pastef journal bi xëy na ci xaati moom wal Walf Quotidien Sud Quotidien ñëw ci commercialisation bu gerte gi ak une campagne boo xam ni à plusieurs vitesses daanaka ku nekk ak cay doxee fële ca Louga la Sonacos vise donc 300 000 tonnes euh, de graines d'arachide Kaolack euh, timide démarrage daanaka mbir ya daal doxagul fa noonu Diourbel euh, ak absence de point de collecte kenn gisu ko fa fële ca Ziguinchor it ñu ngi à la recherche d'opérateurs privés yoo xamante ni dinañ mën a lii di gerte gile le soleil quotidien moom ñëw na ci démarrage bu jaayam gerte googule sax ci la daal di dese ak Sonacos une campagne et des moom Sonacos ci campagne am donc la société donc euh, les Yagineuses euh, se fixent donc un objectif de collecte de 300 000 tonnes à l'usine de Diourbel une vingtaine de camions réceptionnés euh, donc le premier jour ñëwaat na ci bu baax a baax Dakar Presse des ci donc li nga xamante ni mooy démarrage bu campagne boobu le ak vent d'incertitude sur les sur les graines fi mu ni daal Euh, ku nekk da ngay toog di dundee yaakaar ci njaayum gerte googu la tribune ñëw na ci pap Alioune Diallo moom mu ngi incriminer euh, donc euh, ba noppi ñu ngi menacé de faire un déballage un en règle moom Pape Alioune Diallo rebondissement donc dans l' affaire Prodac ci la daal di xëñaat ak le nouveau régime yi nga xamante ni ñoom indexé nañ ci bu baax baax ñëwaat na ci moom tribune quotidien waaye des ñi promesse d'une vie meilleure aux Sénégalais Diomaye Sonko peine devant donc leur engagement li ñu diggee woon askan daal fi mu ne nii ngay sooxewoo bu ñu sukkandikoo ci journal bi assemblée nationale moom critique la daal di xiiñoo ak Barthélemy Diaz destitué dafa daal di samp bu ñu ndax dinañ teggi ndooma tànkamam euh, des finances publiques euh, du troisième euh, trimestre aussi de 2024 ak une hausse de des dépenses budgétaires journal bi xëy na ci xaatim dans sa note donc de con de conjoncture du troisième trimestre le directeur de la prévision des études économiques DPEE e, moom li moom une pour cent en glissant donc annuel en glissement annuel euh, des ressources mobilisées euh, yi nga xam ne évalué nañ ko à hauteur de deux virgule euh, de deux mille huit cent quarante trois virgule un milliard de francs CFA en fin septembre deux mille vingt quatre quant aux dépenses yi ñoom elles sont estimées à quatre 1438,6 milliards de francs CFA, soit une hausse donc de financement de l'économie ñëwaat na ci ak la masse monétaire bi nga xam ne dafa régressé de plus de 157 milliards de francs CFA journal bi xëy na ci xaatim bu baax a baax dañuy jàll ci euh, point actu moom it quotidien boobu la mi ngi xëy ci absence du gouvernement moom Déthié Fall ak Boubacar Camara ñu ñuy xaar fi ne nii mooy euh, leur point de chute euh, investi donc sur la liste de Sàmm Sa Kàddu moom Déthié Fall daa day daa delloowaat li nga xamante ni moom mooy euh, lu ni mel ba noppi nag sa réputation moom moo nekkoon en jeu pour soutenir Pastef Boubacar Camara moom dafa daal di devenir un du projet durant la campagne électorale ak les deux leaders donc yi nga xamante ni ay leaders politiques lañ prétendent à des postes seniors va-t-on vers un remaniement euh, donc après le marathon budgétaire la DPG moom journal bi dafa daal di samplaaj waaye des na ci. assemblée nationale bi nga xam ne ñu ngi jëm ci révoqué kii di Barthélémy Dias de son poste de député des ci décision de justice ak Marie Lo mi nga xam ne condamné nañ ko à 22 mois pour escroquerie waaye ne mu ci euh, signature aussi de convention fële ca ADL ak ADMP euh, ADMPE euh, ADPME donc ñi nga xam ne ñu ngi soutenir la lutte contre la mendicité des enfants ñëwaat na ci bu baax a baax moom journal bi la l'info ñëw ci colonisation justice ak réparation ak le front panafricain ñoom yëkkatiwaat nañ ay kàddu ci lu nu mel ñoom parlement boobee mu ngi ci page 4 bu journal euh, bi lay l'éveil euh, quotidien moom bi ñëw ci campagne arachidière bi ak la Sonacos li nga xam ne bëgguñu lenn lu dul trois cent mille euh, tonnes yi nga xamante ni moom la ñu daal di euh, viser direct news des na ca Touba ak installation du comité de suivi euh, de la réforme donc des programmes scolaires ñu ngi def daal ba soppi programme scolaire bi foofee ca diwaan bu Touba ñëw na ci en tout cas ndorteelu liggéey boobule une décolonisation boo xam ni des programmes scolaires foofee la ñu daal di dooree ñoom waa tuuba journal bi daal na ci euh, donc ñëwaat bu baax a baax waaye 24 heures di ko feelu ñëw ci production de la lutte publique et c'est donc de la dette publique et c'est risque de hausse impératif donc d'un budget de de d'un budget 2025 boo xam ni bu efficace la moom ñëwaat na ci bu baax a baax waaye des na ci rumeur yi nga xam ne am na su une prétendue levée de fonds euh, moom Cheikh Diba mu ngi démentir ba noppi di menacer euh, nii dina daal maywul toog dem ci yoon ngir ñu wax lan moo tax ñu tuumaal ko point actu euh, ñëwoon nañ ci léegi moom ci Déthié Fall la des ak yi nga xamante ni moom moo di Boubacar euh, Camara leeral euh, info moom it ñëw na ci censure des médias Anta Babacar Ngom moom mi ngi pressé Alioune Sall ngir ñu waxtaanaat bu baax a baax ci mbirum média yooyu la nga xam ne jur na coow ci biir réewum Sénégal le réveil ñëw ci conseil aussi donc euh, ñëw ci conflit presque gouvernement ci la daal di des ak les alertes de Boubacar euh, Justin Ndiaye moom ma ngay artu moom Boubacar Justin Ndiaye man daa ñëwit ci El Malick Ndiaye mi nga xam ne mi ngi ci bopp assemblée nationale un choix stratégique de Sonko moom daal tànneef la goo xamante nii euh, gu ñu xalaat la moom El Malick Ndiaye ca bopp assemblée nationale l' évidence tout en évidence aussi ñëw ci affaire Amir Abo ak Pierre Atepa Goudiaby mi nga xam ne mi ngi xaar moom juge ba ma ngi koy xaar moom juge d' instruction opposition bi moom Père Atepa euh, Goudiaby assemblée nationale ak euh, vers la révocation aussi du député Barthélémy Diaz samp na laaj moom journal bi le verdict des na ci visite officielle du président de la République euh, du Sénégal donc aux Émirats arabes unis du 4 au 6 décembre 2024 monsieur le président de la République Bassirou Diomaye fay un leadership pour restaurer le prestige di Sénégal moom noonu la ko euh, daal di euh, titre moom daal leadership bi mu amee daal fi mu ne nii mën naa soppi xarkanamu Sénégal moom euh, journal bi xëy na ci daal di xar révélation di ñu yëgal Omar si mbirum Omar City ak Abdoulaye Mamadou gisee mi nga xam ni fi mu ne nii moom yóbbu nañ ko prison comment et pourquoi les Sénégalais se laissent donc aussi facilement abuser sur les questions foncières moom dafa daal di samp laaj lu tax Sénégalais. yi di bàyyi ñu leen di ndax euh, surtout nag ci wàllum suuf journal bi xëy na ci daal di xaatim bu baax a baax Dakar Times ñëw ci euh, effectif des militaires français bi nga xam ne jóge na ci vingt mille dem ci mille neuf cent soixante dix à donc euh, donc jóge na ci vingt mille en mille en dix neuf cent soixante dix ñëw ci deux mille cent en deux mille vingt quatre Paris a donc a retiré dix sept mille sept cent soldats de l'Afrique ñoom Paris. retiré nañ nag lu toll ak 17000 euh, 700 euh, soldats ci euh, fii ci continent africain 2 minutes chrono pour lire l' essentiel moom ca campagne arachidière bi la daal di dem donc démarrage démarrage maanaam démarrage na mu tàmbalee daal rax na ak mer dans la panade donc mu ni nag les opérateurs ont les poches trouées poche daal fëq na ci ñi nga xamante ñoom ñoo di opérateur mbiru réew mi quotidien moom it mbirum escroquerie portant sur plus Touba euh, ci la daal di xëy ak ki nga xamante nii moom mooy euh, waaye lu ñu cay tuddee baayam nañu wax nañu wax moom moo def rek. ay ci ñu dem euh, ak antenne quotidien mu ngi ñëw ca front à l'UCAD les étudiants yi nga xam ne ñu ngi en master ñu ngi réclamer 14 millions de de bourse moom antenne euh, quotidien euh, ci la daal di xëy ñëwaat waaye des na ci mbirum Ndella Madior Diouf affaire pépinière boobee ak Kër Yërmande Ndella Madior Diouf riposte par des plaintes moom ma ngay plainte daal di dugalaat ma ngay dugalaat ay plaintam moom Ndella Madior Diouf réew mi quotidien people moom dafa xëyee benn star entretien exclusif bi nga am na ko ak Camila Diagne moom Miss Planète 2024 euh, moom Camila Diagne euh, celle qui se veut voir et euh, pas que visage de femme moom ci la xëy xaatim point actu sport la ñuy ñëw jeexal ko ak tàggat yaram mu ñëw ci ki nga xamante li nga xam ne moom moo di Premier League ak Mohamed Salah mi nga xam mi ngi mettre Liverpool dans la bara moom Salah Euh, lamb ak confirmation aussi de la victoire de Modou ñëwaat na ci Max Mbergane fait appel et continue le combat moom Max Mbergane euh, la ñu daal di àtte doyu ko dafa daal di dugal appel euh, ba noppi di wéyal combat boobu la Tribune Sport ñëw na ci coupe di monde des clubs ak Al Ahli mi xam ni mi ngi tombé sur Messi sans Salah Mané ni le Barça ñoom Al Ahli donc ñëwaat na ci donc moom journal bi la waaye des na ci arène sénégalaise ak Malick Ngom mi nga xam mooy président CNG moom dafa daal di recevoir l' association des sages moom euh, Malick Ngom le Dakar waa sport des na ci appel suite à la confirmation si de la victoire de Modou Lo moom Siteu dafa ab camp daal li ñu bëgg moom mooy dugal ab euh, euh, ab ab appel ba noppi di xaarandi nag fan la wànnit di mujjee gëtam African wala Africa Women's Basket League moom forfait nañ forfait donc du Nigeria Customs ñoom dañoo daal di forfait mujj wuñ bokkul donc la Jeanne d'Arc repêché bu bu Dakar lañ mujjee repêché record yéen kaay des ci Saudi Pro League ak choc bi nga xam ni naam tey bu 17h jotee diggante Al Ittihad bu euh, Karim Benzema ak Al Nasr bu Sadio Mané ak Cristiano Ronaldo Benzema Sadio ak le remake bi nga xamante ni moom la journal bi daal di euh, xëyee tey li daal mbokk yi moo gënoon fës ci yéen kaay yi tey di donc euh, vendredi 6 décembre